voilà mbokk yi ñuy seetaan si seen euh, site euh, internet préféré Océan 24 TV tey nag euh, ñi ngi fii ci diwaanu Mbour voilà pour assister li nga xam ne rek mooy li nga xam ne rek mooy explication yi nga xam ni kii di ingénieur du montage des projets madame Fall Ndeye Mbodj ñëw na fi ngir dajeeg li nga xam ne rek mooy commerçant yi ngir ñu mën a def montage projet yooyu jëme ko ci li nga xam ne rek mooy financement bi nga xam ni

ngir mën a euh, def li nga xam ni rek mooy liggéey boobu jagleel ko ñi nga xam ñooy commerçant yi. daal di bàyyi kadd gi ak ki nga xam ni mooy sëñ Sakhir Diop euh, nekk njiital UNACOIS Yeesal fii ci département bu Mbour euh, ci li jëm ci projet bi nga xam ne rek euh, mooy projet de financement bi nga xam ni jagleen nañ ko commerçant yi nekk ci gox bi kon ñu daal di koy bàyyee kàddu gi rek mu daal di présenter ñi nga xam ne tey ñoo fi teew ngir jëmmal li nga xam ne mooy projet yooyu la ñu ngi leen di nuyu di sant di leen balu àq di leen baal àq li jamono bi dafa gàtt ba tax na tey taa amul ñu bëggoon a am lu tënk lu néew ci wàllu procès bi nga xam ne ñu bëri la ñu nañ ko Dakar ñu nañ ko ñëwaat réunion bu fas yéene ñëwaat nit ñi gën sax li tax nag tey li waral réunion bi tey mooy fonds fonds bi ñu fas yéene ànd ko ak liggéeykat yi muy boo xam ne nii tey naa dañ ciy jaaraat rek conférence euh, nga xam ne tey président UNACOIS Yessal gannaaw yàlla ñun muy euh, Cheikh Cissé gannaaw yàlla bu lii amee moom la te moo ñu xeetal ci ñu def lu ëpp solo mais nuñ mën a def nañ def kut ka kut ñu jot seen pere moo waral tey ndaje defoon nañ ko semaine bële passé ñu ne comme mbir mi dafa yéex ñu xool nan la ñuy def mbir mi gaaw yàgg na ma soññi nag ne documents yi nañu ndax nee na taw dinaa ko wax bu loolu passé nag ñu noonu proposé ñu bëri ne nañ ñëw pour ñu xool ku ne xam na ne euh, pere dafa am ñu koy bind procès du doo jàng ba doo ne da ngaa jàng rek bind ko dafa am ñu koy bind spécial ñu am ñuñ ci cité woon nag yàlla def kii du suñu jigéen du suñu lépp di liggéey ak ñu nekk fële Dakar mun na ñëw assisté mu ñëwee ñu toog waxtaan ak ñu xool nan la ñuy def ba déggoo ba ñëpp jot ci procès su ko defee kenn ku ne gis ci bopp comme président nee na dafa gaaw na gaaw nag ñu nit lu gaaw lañ bëgg ñu ko nguur bëri nañu proposé waye ñun kilifa yi kilifa yi fi ne dañ ne bëgg nañ lu gaaw bëgg nañ lo xamne kenn du ko si naatal yaa kenn du ko naatal loolu dal daal loolu mo waral daje bi tay daje bi nak ñu and ko ak suñuy vice president muy

ànd ko sëñ Seex xaali sama sëriñ Sakariya yi nga xam ne liggéey rek lañ xam taxawu xale yi nag bépp ñu ko yëpp xaalis allah di kii jàmbaar di liggéeykat luñ moom du taxam lu di dara fuñ ne ko acca ngi ci kii moom mooy suñ rak di suñ xarit di xaritu ñëpp di commerçant boo xam ne li mu yor ko bokk ak ay portable bu ñu am moo ñu ko jox kii mooy Adja Faso ne xam na ko ak beeram yu rafet moom itam mooy grand commerçant macha allah kii moom mooy présenté bële sëñ Maguette Fall présenté sa maam di ko liggéey rek la xam kii mooy Maguette Fall

loolu laa amoon dama cee waxoon kii julli nii mooy Habib Sow ma toog ci xarit yi si kan sama am lépp lu ñuy def lépp lu ñuy def ci mu informatisé moom moo koy xam-xam la moom macha allah suñu rakk di ñu déggal sa si jëm rek te duñu rek alfa waaw kon nag loolu laa amoon di ci des ñu bàyyi ko képp xam ne fii amul ku ñëw tey ku ñëw tey parce que lii la boo xam ne ñu ñëpp ko bokk kenn dana ci yey sama kuy liggéeykat di développement ci ñu naan fii la fii la ñëpp ko kon nag ngir maa ngi noonu seen yëpp la waaw kon nag la sant di gërëm suñu délégation bi jógee Dakar di leen jënd merci